Sénégal mbokki amateurs yi jàmbaar production ñëwaat na ñun ci journée bi am solo waaye daa boole ñaari ndaanaan ñaari jàmbaar aarafaar borom ndakaaru borom Grand Dakar Biscuiterie mooy war a laalee ak ki nga xamante mooy borom capp-cappaat soos soosaat muy jos bu dóodóoraat spécial dina dox si diggante ëllëgër bu daal di fort ak bébé garga bi nga xamante ne nii mooy bàyyeekoo dóor dóoraat waaye yemul foofu dañ doon daal di indil la joor ba ko jëli Balla war fa laale ak Bouba Malika waaye ki nga mooy jonaa dina fa laale ak fañi waaye papa bari bari dina fa laale bébé Modou Lo war fa laale ak jaasi pël mbul ak ki xamante ni mooy bébé waali danañ fa daal laale waaye ki xamante mooy deux war fa laale ak confiance nationale Ada Fass Zos cey jàmbaar production Diassy Peulh gannaaw bañ la nuyoo di nuyu waa écurie fekk nag bàyyiwuñ kenn di ziaraat ñëpp di waa jàmbaar di tëgg sa combat loolu nuyu bu baax a baax bu baax la nga nuyu bokk internet di a baax di nuyu waa Morala di nuyu waa waa Mbour bu baax a baax di nuyu sama coach si grand père Mahon Kayre Babacar di nuyu mbër yi fi nekk ñëpp ah. Tafaly ginnaaw bi nga nekk. nag ni may waxee adversaire ah gars yi ñoo doon daw rek bëggoon naa bëree mais nekkul sama coobara bopp quoi. waaw boobu léegi gars yi ñoo doon daw rek ñu ngi doon waxee proposé adversaire yu bëri ah gars yi nag bëri nañ nag mais mbër làmb yi nag amatul ay mbër quoi mais ay tapet ñoo fa ne ah. Eh. waaw ñoom ñëpp ay ragal lañ ku ñu proposé jaasi pool léegi mu ruux xaw ma lan la nag. parce que nekkul tamit jaasi tamit dóor si la bokk làmb la wax ah lépp si biir la bëre beeg dóor beeg yëpp waaw lépp la ñuy jàng quoi bàyyiwuñ dara comme ni ko saa yoo waxee rek fii moom bàngoo la fii bu ñu ko moom gaañan amul lu yomb léppay métti. waaw ah, dafa mel ni boobu yàqale. <laughs> le noonu ngay wax client bi mu am moo la gën a xam kuy jaasi pël. bis bu ma ko jàppee dina xam ne moom du dara du tuus arbitre moo ko fa bàyyi rek arbitre kese fa ko bàyyi. maa ko man moo tax li may liggéey du pour moom pour sama combat bi jàll la woon maag Talfa moom lay liggéeyal ba lii nii nii combat bi day leer de ma jógee si bii nii incha allah kooku moom nañ ma taxal maag moom rek combat bi leer quoi. parce que maa ngi dégg muy wax bu baax a ba naan ay ku muy bëreel du taxaw affaire yooyu affaire yi leer na da ba. affaire yi temps yi gis ngeen li fi demee daal mu gëntal bi am na nu mu demee moom daanu na sax gars yi naan am daanuwul mais daanu na mais làmb yi dafa am ku mu am ndey ku mu amul ndey xëy na dama amul moo tax waaw mais am na defet de loolu laa ko jàppee de laa jàpp de. comment mu passé diggante jamaa noor nga jëm. Ah, ah, jamaa moom mooy loolu jamaa parrainage moom bu yàgg jamaa at bi bu nee piip di nga xam ne jaasi lu mu la wax da koy confirmer tumaak moom kooku bokkuñu sax niveau boo amee gars nii Alias Diène nga am Mbagnick nga am Voldo am am ay bébé Diène Diène Kairé yow di nga taxaw ak boo yooyu noonu di xalaat hmm? loolu du yoon xanaa dañ may yàpp kon sama supporter yi wala boobu. est-ce ma wax la benn affaire. Ah. trois 0 laa ko si àll bi. kon kooku ma xam na ma bu baax ñame mu maa xool. xoolal kii bii jàll rek nga xool ñemewu maa xool dama kaa tàngee si affaire mu ne ko yow lu tax nga nga naan nag maa daan benn yoon mu ruux daw dem xam nga ko ko ñeme nga day taxaw riposté ah waaye bàyyi ba ma jàpp ko rek dina xam ne moom waaw arène gën a yomb sax ku yi foofu lay jógee ko dóor moom cinq minutes ah bu ruuxulee ma jàpp ko daan ko si ay seconde waaw maa lay fay bu lépp ah mun ngeen ci xaar lépp mun ngeen ci xaar bëre bi mën ngeen ci xaar ci xeex bi mën ngeen ci xaar lépp lu làmb gi laaj rek moom laay andi ak li sama gars yi wax rek gars yi lañ ma yebal léegi dem andi ko ko naa ko teg lu métti nag lu mu musta am dinaa ko teg waaw baax na ba ma jàpp ko de maa muy wax ay waxam trop waaw baax na ba ma ko. ñàkk adversaire bi mooy comme ni ma ko waxee sànq rek ñàkk adversaire moo tax ma wàcc jël jamono noir ah. maa moom du làmbo te bëgg naa ne combat bu jàllee bu neexee yàlla saa yi bu ma ko daanee fexee na ngeen jox ma talfaare. na ta ah damaa dëggal sama bopp chaque jour nekk mais mooy loolu rek mais yàlla baax na li si kanam rawelu bët xam nga jaasi pël moom bu ñëwee moom ñëppay ñëw bëreegu ma de sama combat ak Talfa sax bëreewu ma walaay bëreewu ma walaay bëreewu ma yaa ngi fi teru maa ngi fi xoolal combat bi nag laa bëgg a wane sama nag ba gaa yëpp xam ma Talfa moom am na nga di problème boo xamante ni moom du am fu mu koy waxee bis bu ma ko jàppee dina xam ne moom mii lu muy def yeneen gaa yi Diassy Peulh bokku si Diassy Peulh nekk na mbër boo xam ne boo ko xoolee da ngay naakaar ni moom kii moom yàmbar la mais bis bu ñu talantee nga xam ne kii jàmbar dëgg la waaw moom xam na loolu noonu mais kooku amul doole. jama tapper la jama ragal la tapper la ndondol bu mu dëkk boobu noonu daan naa foofu benn yoon te foofu dama kaa mbotti woon ah dama jàppaat ko dina xam ne moom moom du dara du tuus du tuus dama kaa xam rek dañoo laale laale waat laale waat encore loolu moo tax ne du tuus waaw loolu nanguwul xëy ñamewul sax kooku ñamewul. ragal la ah loolu day wax rek. yow boo xoolee jaasi pool combat am yëpp day xeex ba pare ko a bëre man loolu lañ ma jàngal yow da ngay xeex ba pare soog a bëre ñun dañuy dox si mbedd mi sax de xëy léegi lañ bàyyi rek léegi rek bàyyi léegi nii mais ñun moom bu ñu nekkee si mbedd mi kenn duñu yab de même ba si làmb gi sax kenn duñu yab mais yàlla baax na bañ jàpp jamono rek dina xam ne moom bu mbër Mm-hmm. waaw man samay affaire méttiwul de gaayal si gaayal rek mais damay ñaan waa jàmbaar rek ñu gën a yokku affaire yi moom bu combat bi jàlla rek balaa xoolal balaa maa génn si stade sax incha allah ñu joxaat ma benn avance dana doon Talfa de moom amul combat yaakaar naa waaye jamaa noir dama amul li may wax ak moom dama koy jàpp sànni dama koy ah dama ko <laughs> <laughs> da nga koy jàpp sànni ko fële moo gën yow doo dara doo tuus waaw moom baax na kon ma jàpp ko moom moom day nekk foofu di naan ay bagage man man naanoo bagage man naturel laa de bagage muy naan ak yi may naan bokkul moom xam na bu baax bés bu ma ko jàppee yow di nga xam ne yow doo tuus yow seen waa équipe laay boole taxañ leen dugal leen si saako yóbbu leen wala wékku mbaam bi dal leen waaw ah. te wékku mbaam bi day dal par ah. man tiitu ma li may def man du ma am booy yi ñoom Aliou Diène gars yi ni di tiit li may def ñoom bébé Diène kii Mbagnick Diène Kairé man tiitu ma loolu man damay bëre per kayre yebal ñoom bu ñu yebalee moom xam nga dañuy dañuy bàyyi lépp def lu mu wax kon boog jamono am nga gan problème de yaa sa waa écrit yow wékku mbaam di leen dal par force de te da ngeen dem Morolan de wékku mbaam di leen di dal waaw waaw te dañuy dem Morolan de jamono noir yéen da ngeen yaakaar ah na yow bu jour ba damay ñëw ba si yow yow mu ne la eh taxawal fii yow nga xool combat bi nii waaw xoolal boo yéexee doo ko jël bi bu nangoo xeex ñu xeex bu nangoo bëri nag ñu bëri ko moom mburu mbapat laa man mburu mbapat laa kay du nangoo xeex sax day bëri bëri bi day gën a gaaw sax day gën a yomb si man man lépp laa boole ñaar yëpp ñaar yëpp laa boole man man man man kuy gañe man maay gañe waaw lépp jox ma ko maa ko bu doole dara tuus boo xoolee daanu dem ñibbi. waaw wala ñu amee ko boppu mbaam bi rek saxal ko boppu mbaam bi déedéet Zarko moomu ko dee Zarko dee xàññu rek ñoo ko moom ñoo ko moom Zarko xamul dara si affaire boobu noonu ah, parce que ñun ay catholique lañu waaw par force bu naree dof dof sax ñu takkal ko wee bi waaw waaw dox moom xanaa yéen tiit ngeen waaw loolu la demee nag. waaw da gërëm waa yëpp nag de gaay yi nañ si ñëw jàppale jàppale ma aw ma jàppale combat bii nii moom gisuma kenn gars yi ñëwaguñu nañ ñëw nag gi dañoo war a teel la ñëw ñu jënd billet yëpp monsieur le maire Yves Lamine Cissé Edou waaw sama gars yi mooy loolu xam nga rek Diassy moom loolu mooy problème am quoi ñàkk a jàppale bi dafa des duma géej si gars yi man maa ngi si gars yi chaque jour waaw damay dem si ñoom de mais jàppale bi moo des rek mais maa ngi woo gaa yëpp nag ñëw jàpp si bu baax a baax waaw du woowu maire Medina bi Fass Colobane Bamba Fall gars yooyu nag ñëpp ñu ñëw jàppale ma jaay seen doom la seen lépp la moo bàyyee nekk si làmb ji bëgg a génn bëgg tekki rek la loolu kese la bëgg naa ñu jàppale ma nag ah waaw di bëggee sama njool mi nag dëccee waaw Zou Faye dafa jaar si Pierre sama booy yëpp di leen woo ñoom ñu ñëw ñu gën a jàpp si affaire bi jamaa dama dama bokkul moom catégorie bokkuma moom catégorie jaay ko day tiit dafa xoolee daa tiit bokkul samay bagage kii di xam na ma bu baax a baax eh xam na koy jaasi pol waaye waaw ay mbapat di tàngale ay nit benn combat a jaaxal ah xanaa yaa ko ñëw si si lu mu ngi noonu xam nga jaasi day bëri def lu nekk ah. loolu mooy problème la loolu dafa maa métti quoi. Ah. bëggoon naa dem de. te combat su ma ci sama lisaan damay dem de. ah loolu dara dem compétir rek ñëwaat toogaat. Ah. loolu miin nañ ko. lisaan bi mooy sama problème fu mu toll nii rek. Ah. mais mu ko ci doon dem bëri ji mag saa waay dama kaa war a fasaale yóbbu ko. sama sama poids bi. non non bàyyi ko si tànk yi ba si kanam nag poids lourd bi poids léger bi kii poids léger la. <laughs> waaw noonu la demee di woo nag di woo waa bu baax a baax waa Tere Camasage Mbour séeréer suñu AIC bi waa Camasage. zone nouvelle guy Mouride hmm. ah, kii waay moom sa réew gars yi nañu mobiliser mu doon dambee jox naa la affaire boobu nag moom si leel booy booy teel a ñëw ñu teel a dugg liggéey jamono dem suñu yoon waaw ma doon la noppi yéen ñëpp na ngeen teel a ñëw ñu teel a dem ngeen teel a génn ah, liggéeyante gan gi waaw Medina Fass Gueule Tapée Colobane ñoom ñëpp it teel leen ñëw ñu teele a liggéeyante waa ñu dem bëgg naa nag ñu jàppale ma bu baax a baax teg naa ko seen loxo yéen ko wax dégg ngeen jaasi ah, Paul amul amul ko koy jàppale nañ ma jàppale. waaw di bëggee sama coach bi grand père mu may teg coono yu métti noonu lay def loolu mooy problème bi fu mu toll moo tax ma la koy wax. comme ni nga lu raw loolu. lu la ñuy ëpp bi andi bu incha allah maanaam ak Talfa xanaa xamoon ne sax supporters yu bëri ñëwuñu woon dañoo amoon programme gars yu bëri ñëwuñu woon dañoo amoon programme waaw loolu la quoi jaasi Paul kay mooy loolu. man damaa waa waa ba sonn gars yi nañ ma jàppale monsieur le maire Yves Lamine Ciss ñëwal jàppale ñu sa doom jaa si pël waaw mu ngi nii mu lay waaw gars yi mooy loolu suñu waa dëkk maire waa maire amu seen fay ñoom ñëpp combat jaa si day am combat ñoom ñuy cotiser seen ñaari dërëm seen juróom ko ba ñu àndil moom amu seen fay quoi dëgg bëggee waa ñi encore waa ñi xib ñooñu dañ ci sonn si affaire yi jaa si pël dëkkul foofu dëkkaanuma foofu mais saa yu amee combat ñaari kaar moo fay gën a donte am nañu mbër foofu dañoo bàyyi seen lépp jàpp ma seen comme seen doom di woo waa fulum waa waa jaasa waa tëngal mer luxus njaay bopp kër daawda palo kolobaan ah xay waaw gaa yëpp nootoo guy jama sama dëkku saa bio bi kër mbir tooni waaw Ada Fass nag comme ni ma waxoon keroog rek na jàpp saa waaye taxañ ko sànni ko fële mu àll ko ma doggali ko mu jeex tàgg waaw ñun loolu la ñuy ñaan quoi jamaanowaar am na problème jamaanowaar nee naa la sama wékk bi da lay dal wékku mbaam bi da lay dal par force ñu dugal si saako yóbbu la morola loolu laa lay yóbbante da nga an da nga entraîné de entraîné lu entraîné ko yow man chaque jour maa ngi ci de maa ngi chaque instant grand père ngi nii sama course Babacar gaa ñu may teg lu boo xoolee sama kanam bi sax nga xam ne kii coono nekk si moom kon boog liggéeyal am nga problème de bis bu ma la jàppee yow di nga xam ne yow dara doo tuus waaw